gërëm naa leen sant naa. jërëjëf Mame euh, définition hépatite B nag niñ koy mën a définir c'est l'inflammation du foie maanaam foie bi nga xam ni dafa am infection dafa am virus loolu mooy définition hépatite B hépatite B nag virus la virus la bi nga xam ni dafay dugg ci organisme doomu aadama di ko yàq comme niñ ko waxee mën na laal foie bi mën na laal cœur bi mën na laal roño bi mën na laal bile bi mën na laal pancréas bi kon hépatite B bu ko nit amee rek na jàpp ni moom mooy ndayu cancer ndax hépatite bokk na ci luy jur cancer waxuñu nag képp ku am cancer ci hépatite B la jóge mais mën nañu wax ni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 kontaan naa si yow lool lool lool lool kontaan naa si yow bu amul àpp yal na la yàlla jàppale yàlla ni suñu borom yal na nga fi yàgg lool lool bu ànd ak wér ànd ak mujj bu rafet waaye amul lu ma dajul ci àdduna amul lu ma dajut fune dem naa fa fu ne dem naa fa tee rek nag tee wér rek nag waaw fu ne dem naa fa jërëjëf Sine Balla kontaan naa bi ma la gisee rek sama xol bi dafa sedd li jóge ci yow li jóge sama xol bii mënuma la koo wax kontaan ci sama xol sama xol dafa bëgg ci yow. Sine Bara macha allah macha allah kontaan na bu baax ngeen du jàmm ak salaam jërëjëf. jërëjëf maam waaw hépatite B moom.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

dafa am virusu hépatite B ñu xool ci yan anam ak forme yi ñu mën a jaar pour ñu mën ko jàppale ba wàllu feebaram boobu mën a tàggoo ak moom ci kattanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem salaamaaleykum wa rahmatullah tontoo Lamine Bara Fall maa ngi lay nuyu di la ziar di la nuyu lu bëree bëri rek di la balu àq di lay sa jàmm ak sa jàmm yaram ah di rafetlu rek di nu seqan wax dëgg yàlla gis naa ji ay ngëneel yu bare bari yu xewale di sàkkuwaat nga ñu ñaanal rek fasaaleel ñu wér yaram ñaanal ko ñëpp rek ñu ngi koy sàkku ginnaaw bu yàlla jàllee kontaan naa trop wax dëgg yàlla yi ma defalan daal gis naa ci changement yal na yàlla yokk rek yal na yàlla yokk xéewal yàggal ci sun kanam ñu nit ñu yàgg ci sa kanam yàgg laa di sun soxla nga dinu ko fajal ginaaw bu yàlla jàllee dëgg yàlla kontaan nan waa kay jërëjëf nekkal si jaamu doon doon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 laaj yëpp nga laaj ma ko man lu ma la war laaj ci sa yaram ma laaj la ko ñu poser une bonne diagnostic xool bu baax dëgg-dëgg li nekk sa yaram yëpp xool yan feebar nga àndal yan feebar moo nekk ci yow lan nga bëgg lan nga bañ sa yaram lan la supporter lan la attan loolu mooy li nga xamante ni moom la fajkat bëgg ñuy profité di ko ñaan képp kuy dem ci fajkat bu mu munti doon ci wolof wala ci tubaab bu mu munti doon dañuy bëgg malade yëpp di def consultation loolu mooy li gën loolu Euh, mu metti won lol ci man nak jaaxle won na tamit ndax euh, fu ne dugg fa dépenser na tamit xaalis bu dul jeex euh, ma am sama ben xarit bu baax bu nekkoon fi Sénégal wo ma téléphone expliquer won man ni ma amna ko ko fi mën a faj bi ma ko waxee nag bon gëw ma ko quoi parce que bo feebaree xam nga nga jaar fu nekk sonn mais bima ñëwé fi Sénégal la xam ni lépp daal dëgg la quoi ndax ci lañ ma bolé ak ben waju baax bi ñu wax Serigne Modou Lamine Bara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 ci par routine non rek la ko nako la ko trouver hein ah. mu nekkoon nak affaire bu buma buma ma handicapé quoi. mais gis nga bima ma ci yow nga jox may garab ma dem wat ko muy deuxième fois fois dama ñëw def analyse zéro lepp dañ lepp dañ set wecc médecin bi nga xamni moma moo doon suivre muy hépatologue bi dafa ni mais comment ça s'est fait que affaire bi da koo jaaxal quoi mané ko nak euh, yow xamna do xam waye man xamna naa nak ma ci sant bu baax.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 dégg naa say mbir bu baax a baax a baax li ngay def leer na li ngay wax leer na ñun moom ñun taalibe murit yi moom yaakaaruñu kenn ku dul Sëñ Tuubaa ak Seex Ibra moom moom laa lay bàyyeel moom mi nga xam ne moom moom lépp man nag ci sama jëmu bopp ku sa mbir leer na ndaxte bi nga feeñalee ku sa ngëm-ngëm ci yàlla ak ci yonante bi ndaxte kii wax jiital ku suñu borom ah, ah, ak yonante bi kooku am defe naa ragal na suñu borom ragal boo xam ne nii lu muy def yëpp mu ngi ci xool ku suñu borom ak yonente bi ndaxte ku dee yaa ëkk sa bàmmeel la te xool nga sa diggante ëkk sa bàmmeel ak sa njaboot bi nga xam ne moom ngay bàyyi ginnaaw man it koy koy yàlla laa lay bàyyil ak sëñ Tuuba ak Cheikh Ibra ndaxte ñun moom la ñu yaakaar fii te moom la ñu yaakaar fële kon nag li ngay wax leer na ci ku ci barke borom Tuuba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 bon jàpp sama biir. feebar bi nag wax dëgg yàlla dem naa fu ne. docteur bu ne dem naa fa ñu def ay analyse ñu ne ma gis ñu dara. waaye yàlla dimbali ma. may suivre toujours télévision yi borom xam-xam yi. yàlla xam na ne nag borom xam-xam yu bari dem naa ci ñoom. dem ci tubaab yi ba sonn ñu bindal ma ay garab ba sonn def analyse bu nekk gis ñu dara dem nit ci boroom xam-xam yu bari waaye bi ma yàlla booleeg sëriñ Lamine Baara mii ba ma dem fa wax dëgg yàlla mu commencé ma ay traitement vraiment ci diir bu gàtt rek laa tàggoog loolu te yàlla xam ne lu ma lekk daawul rees daan tiit sax pour dama daan ragal sax lekk ndax bu ma lekk rek am problème tëddee bu guddee ma tëddee ma daan fat gudd gu ne dama naan est-ce du ma faat ma wax dëgg yàlla yàlla ak sëriñ Baara mii moo tax ma tàggoog loolu wax dëgg yàlla du loo xam ne traitement jël temps la ci man dama daan dem ñu may jox reen ak i garab may naan ba sonn dara waaye wax dëgg yàlla ci kàttanu yàlla daal moom mii moom ma faj waa fajal ma yeneen sax wax dëgg yàlla loo xam ne waxuma ko woon ndax nit ku nekk boo amee jàngoro la la gën a sonal rek ngay gis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 wa sa garab yi da moom solo torop torop torop vraiment bima koy commencer di jël ak léegi dal wax deug yalla ma ngi sentir ne lu am solo la wax deug yalla contane nañ ci yow torop seigne bara ñi ngi contane ci yow dila gëna baye suñu bop dal jërëjëf sëñ Baara. am na ci xamanteni itim ci biir traitement bi dañ lay jox ba jox la euh, effet secondaire yi nga xamanteni mom la hépatite B di def ni sa bop di metté sa bëdi di lëndëm sa fit bi di teftefi ni bëdi di xonxé japp mbagg yi jàpp ndigli tanki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 ci li xalaat damay ñaan ci loolu mu yëngu laa yëngu waaye dafa am loo xam ne su ko nit waxee rek sa xol dina sooy wala sa yaram daw ba mu tax laa dugg ndax bu fekkee danaa seere ci moom ay jikko may def ay témoignage alxuraan nee na wa maa shahidnaa du wax lu mu xamul waaye biir na ma ne moom ab taalibe la te ku bëgg Sëriñ Tuubaa la te ku am pëstéef la itam ci liggéeyam ku yàlla may la te ku yàlla baaxe la te ku xam dara la itam muy borom xam-xam boo xam ne bu ñàkk ci ñaan la. boo xamante ne nii tax doomu soxla dafa fiir. doomu aadama xam-xamam bi muy yëngutoo bis bu demee bu yëkkati ko ba jox la. surtout muy di fexe bi ñëpp ñàkk. da ngaa war a jàpp ne kooku kon ku baax la. mbirum faj ak waxtaanu xam-xam dégg naa dañu leen di ci wax sànq. waaye Sëriñ Tuubaa dafa am lu mu ci wax daf ne yaa ayyuhal jiyaani laa tastaqilu anil hudaa wa bil ulumi istaqilu bil assi wat tilaawa mu ne ñun ndaw ñi nañ fexee takku xam-xam ba noppi ànd ak lu jub ba tàllibu majaañ ci saxaaw te ñu ñëw di jotaay way texee di mu ne kon bu ñu ko defee ba ku lu mën baadara ci xari dinaa baaw wis ci raax waxtaan ci bëri suñu borom moo ñuy téel sag mag yàlla moo lay téel sag mag boo demee ba retraité incha allah suñu borom dana a taxawu te ñaan moom fa astajaaba lahum rabbuhum suñu borom nee na dinaa wuy si ñu may woo mu dellee adduuni astajib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 169 45 45. maa ngi lay nuyu di la bëgg di la ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ak mujj bu rafet nga yàgg fi lool lool lool ànd ak weer ak werle ak mucc mucc le waa nga yokkal ñu ñaan rek ñu yokkal ñaan rek nga yàgg fi lool di ñu faj ñuy wér jërëjëf seen bi fay la jërëjëf seen bi fay la seen bi fay la sa xam-xam ak sa coono dëgg yàlla sonn nga si ñun lool lool lool doomu aadama yëpp sonn nga si ñoom ñu def lu baax di ko wax. masya allah merci ngeen yang jam yang jam jàmm jaga njaga ya jadi jeff yang bara jadi jeff wah jadi nala de tey jii nag ñu fas yéene lenn ci li nga lu sonal askan wi la muy epati hépatite B ñu bari ci askan bi loolu daf leen sonal lool rawatina nak ñi nga xamante ni dañuy nek jigen wérul dem di may deret ñu wax leen dañu am epati B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

man dama noonu laa mel. ginnaaw ginnaaw tey gën naa la wóolu maa ngi lay ñaanal yow tamit yàlla yokk sa xam-xam dëgg sa taxawaay dafa la najaax si barke Muhammad rasulullah sallallahu ah yàlla boole na ñoom yàlla na yàlla teg si yoonu siraatal mustaqiim bu ñu ñaan ñëpp nekk ay mbokk. moom daal suma xol fees na daal kontaan naa si yow waaw gëm naa la yaakaar naa la te maa ngi ñaan yàlla yàlla. jërëjëf Serigne Lamine Mouhamadou Lamine Baara jërëjëf jërëjëf. jërëjëf macha allah kontaan naa si euh, accueil bi kontaan naa ci consultation bi kontaan naa ci lépp rek parce que gis naa ne yow da ngay dem ak abnégation da nga fonk ki nga xamante ne sa mënaat la macha allah sa bala xalaxi na macha allah yal na yàlla yàggal la fi te yal na yàlla defal la si faaw yal na yàlla defal la si faaw koo faj rek yàlla na wér incha allah taala incha allah lool la lay seetee. xam nga nit ki kat jëlee. <coughs> metiem faj nga ne da ngay A ah nag war nga ñaan yàlla si faaw nak faaw boobu na xam naa ñaan nga ko yàlla waaye man tamit maa ngi la ñaanal yàlla rek faal biram yal na wér incha taala ala allah incha allah sant naa la bu sant naa yàlla parce que lii yàlla rek moom ko mën a may bima ma yàlla boolee ak yow nga nek nit ku baax yow tumi nit ku sep nit ku ma allah samal xalaxin nit ku jang nit ku am xam-xam nit ku bari xam-xam ma macha allah sama xalaxi na te bëri wilaaye wallahi la azim yàgg naa tase ak ay nit de waaye nag guleet ma tase ak ku ni yow macha allah sama xalaxi na wallahi la di sàkku ci yow tamit ñaam ci xam-xam bi la yàlla jox te xam naa ne yow macha allah yàlla jox na la xam-xam loolu lu ma leer la am na la yàlla jox te yaa ngi koy jëfee tam jëfin bu rafet macha allah sama xalaxi na loolu aussi maa ngi ñaan yal na yàlla yokk ko jërëjëf Fall bég naa yalla yalla kontan ci yow yalla yalla begal la yalla kumu begal nga beg yalla yalla begal la Fall Biram jërëjëf fal Biram jërëjëf yaa ya bax ya bax na yalla fay la yalla taxawu la bu bax bax bax bax bax kontan na ci yow te jàpp la bu sobe la inshallah allah jàpp la wuro sama ak yow ñu def wóolore bu bu wër te lu deggu parce que nit ku bax nga nit ku sel nga nit ku yiw nga machallah allah. bu ma dégloo say waxtaan rek la am xel mu dal ne am yaqini yow mi li ma bëgg mënal nga ma ko te noon noonu la noonu nga ma ko defalee kontaan naa ci yaw trop trop trop sëñ Baara baax kontaan trop wax ji nag fi mu ne nii xam naa ne mëniwuma ko te sama xool dafa sedd trop trop dafa fees eh, suñ borom nañu may wér rek ak gudd fan ak fekkee defal ñu lu ñu bëgg ba ma won ba ma jéem jéem sax laay def waaye mënuma la fay ko barke Seexul Xaadim ndax li nga ma defal sant naa ci yàlla bu baax a yonent bi ak Sëriñ Tuubaa maam Cheikh Ibra Fall rëccu ma daal li ma doon xamante ak yow rëccu ma li ma doon jëflante ak yow yàlla na suñu borom bàyyi nga yàgg fi lool te am wér. kontaan nañ lool ci yow Fall jërëjëf jërëjëf jërëjëf yal na yàlla yàlla fay yàlla barkeel bu baax a baax jërëjëf Fall kontaan naa.